mbokkante noonu li mu ñi ngeen di nuyu leen dalal di leen remercier encore une fois ci topp bi ngeen ñuy topp comme à chaque fois ñoo gën ci actualité bi actualité bi nak di concerné ki nga xamni mom moy mooy Habib Beye fi international sénégalais mom nak dañoo daal di utiliser turam ci benn compte Twitter daal ci daal di ci def benn post benn post bo xamni nak koku kooku mi ngi daal di tontu ki nga xamni mom moy Macky Sall ginnaaw bi mu félicité ki di Sadio Mané ci Ballon d'Or bi nga xamni ne remporté na ko moom dafa doon wax ki nga xamni mom moy président Macky Sall que ce n'est pas normal pays bu melni Sénégal amul benn stade bo xamni dafa adéquat té Sadio Mané mi ngi nii jël Ballon d'Or ki nga xamni mom moy mooy El Hadj Diouf tamit daal di koy jël ñaari yoon loolu nag nekk benn réponse boo xam ne benn nit moom moo daal di utiliser li nga xam ne moom mooy turu Habib Beye daal di koy def ñu bëri yaakaaroon ni moom la waaye ki nga xam ne moom mooy Aboubacry Ba di journaliste loolu noonu ko gisee nag mu daal di ci biir Twitter wax ki nga xam ne moom mooy Habib Beye moom moo am compte boobu parce que moom compte am dañ ko daal di certifié ne moom mooy Habib Beye tamit daal nay génn daal wax ni compte boobu nga xam ne waa jooju moom la utiliser daal di nañ koy bloqué loolu nag di benn information boo xam ne mi ngi concerné ki nga xam ne moom mooy Habib Beye ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di ma limametti point com ngeen am information yi bu leen fàtte bés cloche de notification bi nga xam ne moo leen di mën a permettre ngeen am information yi foo leen mënti toll